Xalifa maa ngi lay nuyu bu baax a baax te di rafetlu sa tànk fii ci Ndakaaru ma yaakaar de dina doon barke ci ñépp fii ak li ngeen fi tabax muy magal yàlla doon màndarga ñépp ñépp maa ngi lay gërëm ak sa taalibe yépp te di la wax ne sunu diggante